dinaa wax fii tey dinaa wax fii benn affaire boo xam ni ñu bëri bëri bëri xamuñu ko xam nga Ousmane Sonko. yàlla dafa dogal mu ñëw seet ma fii ci géejawaay ma mm-hmm. nekk seul maire boobu ba léegi boo xam ni nekkuma ci parteem mu ñëw seet si ma mm-hmm. déggoo ma de. Mm-hmm. waaye ci mbirum diine jooju nga laal. Mm. moo tax ma ne la tey ma wax loo xam ni peut-être ñu bëri xamuñu ko. waxal nag ñu dégg tey le 8 mars. du ma ne kenn ëpp ko diine ci réew mi de. Mm-hmm. mais nitu diine la man suma mag moo bokkal ndey ak baay. Mm. Moussa Aydara daaw jéeg la décédé. ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm xarit ko mm. doon ànd Ziguinchor. xam nga lu am bag dem université Gaston Berger quartier HLM Néma man sama kër mag foofu la ne magu Ousmane Sonko mi ngi tudd Vieux Sonko. di and ak suma mag buñ bokal yaay di mumudu sar barki dembe la ko pas Sonko telephone bima view ndangan sam vie Sonko moy magu Usman Sonko di and ak suma mag bu tuddu mumudu sar koku yaay lañ bokk suma mag mo bokkal ndey ak bay di Musa dara ndey ak bay waxuma suñ day ndey ak bay Usman mhm. don and ak usman Sonko de goma de waye li len nit ñi xamee mooy wàllub diine mhm. ñu ne mom shérif la mais gis nga Sonko mii dafa bëgg ay affaire yu ibaadu ibaadalu ñoo bàyyi ci jàkka ji déggoo ma de bale jàkka raxas jàkka ci lii la ñu ne am bag dem Gaston mhm. su ma déggee ay nit di wax ci ay affaire diine ci Ousmane Sonko dama naan ndeysaan xamuñu ko mhm. léegi-léegi ay naan xoolal jëbi ndeysaan dafa julli ba xaw ma la la may ndeysaan xamuñu ko ci diine man Ahmed dara man ci laa ko njëkk a xam. balaa ay affaire u impôt domaine balaa ay affaire u politique. ndeysaan. gis nga bi mu créé Pastef. Mm. mami. Mm. bokk naa ci ñi ko njëkk a jël seen jotaay. Mm. mu ne ma kon yow yaayu magu Moussa ma ne ko non moo ma mag de mu ne ma mais yaa ko ëpp yaram. ndeysaan xaritam moo ñu àll néeg. Mm-hmm. néeg boo xam ne pour wax la yàlla mooy maye. Mm-hmm. xam nga néeg ba lu fa ne. lu fa nekk. ñaari seize lañ indi teg ko fa pour man ak moom ñu toog ci. Hmm. pour ñu def émission man ak moom ak Baba Diaw kese mu sol benn xaftaan bu bula 2014 ou 2015. Hmm. Pastef doon doog a judd. Hmm. ce qui me lie au président Ousmane Sonko nekkul ay mbirum politique. comprends li ma la wax. man maa la mën a wax diineem parce que moom ak suñu waa kër ñoo dëkk ci benn kër. mo do suma dege déggee nan ay kilif day yak di yak diine kilifa diine yi xawma man ay re dañ may japp xamuñu ko c'est pas parce que nak dama bok ak moom coalition wala da don ànd ak sama mo do ma fi ne wala wala le, ay ki di ko xalamal non lima wax ni sen wa keur ñing may seetaan parce que télé lay waxe mm-hmm. télé lay waxe magam sama mag la andal mom muy sama benen grand frère mi ci diine ci diine ci diine ci la waa yi nekk nii kii bu nekkoon nit koo xam ni moom Sonko mii nii luubalkat la heure yi dee na kii bu ñu amoon ci moom benn cinq cent cinq cent franc faux billet heure bii dee na maanaam ñoom lépp lu ñu am rek ci moom lu ndaw exploité nañ ko ñoom duñ ko may dara moo taxit moom it du leen may dara mm-hmm. moo jur tey mortal combat bi mais ci politique lañ ne bu xeexul dee Mm-hmm. bu mortal combat ñu mortal combat ko. Mm-hmm. su yaacaaralee dee su nelawee du bokk su gëmmantoo mooy koo xam ne gëmmantoo waratu ko nelaw waratu ko dara warul bu rek mais moom dong mënu ko. Mm-hmm. déggoo ma de. parce que moom xam nga duñ ko may dara ñëpp sur si lañ ne comme moom. billaahi wallaahi talaay ku ko jàppale jàppal ne yow sa bopp ngay seetaan de. ah oui. sa bopp ngay seetaan nañ toog fii di sàggan rek ba gaa yi lor ko ñun ñëppay loru. Hmm? sama benn yaay ma maa ngi naan ne ma man de bokkuma ci parti hmm. waaye opposition. Hmm. ah man de bu dee opposant opposant rek man daal maa ci moom malgré bokkuma ci parti am parce que nii mooy opposé woo nag. lii nag mooy opposition. te loolay dëgg. yow mënoo nekk ab opposant boo xam ne safoo yàpp safoo jën benn objectif la doomu aadama di am. mooy kii na fi jógee ma wutu ko. booy mhm. politique. Mhm. bu dee président de la république. Mhm. bu dee da bëgg nekk maire. maire bi fi ne nga ne na fi jógee ma wutu ko nga koy dox di ko wax 2014 ba léegi mi ngi ci. 32000 voix déglu ma de lañ njëkk am élection bu njëkk 32000 voix. 32000 voix. ñëwaat am 700000. nga xool image su njëkkam ya muy taxaw ca 405 la xaw ma ñeenti gaa yi muy wër ko ñoom ñoom ñoom Damel Sané. ci Ziguinchor. ñetti nit yu topp oto bi amul soxlawul garde corps nit ñi soxlawul ko waaye xoolal tey. Mm-hmm. yàlla mooy may barki yàlla. Mm-hmm. lu yàggul dara laa ngi këram. Mm-hmm. ñu toog nii rek moom di waxtaan ma demee dëkk ba parce que gars yi ko sa grand yi de ñu ngi nii ñu ngi lay a rek grand. lii ñu liyee pour wax la waa yi ci diine ak ci jàkka yi la dëkkoon moom ak sama mag ci biir jàkka ji la dëkkoon moom ak sama mag suba ak guddeeg bëccëg. ndeysaan. wax naa ay yàqkatu diine la yàqkatu kilifa diine yàlla ñi ko xamul ñoo wax loolu yeggali leen wala ngeen yeewu ma ñibbi.